ñetti madame manam euh, Consulting fédération malienne de savate boxe française ak fédération sénégalaise ñoo lekelo pour mën organiser lo xamné moy les trois finales de championnat du monde de savate boxe française euh, finale Bobunet, disons que euh, ñetti ñi ci wara africain lañu Mohamed Diaby mi te malien mais le Sénégal les marocain ci wàllu Afrique nous ñoo bokk ci ñetti jongante ci ak ñetti français la am Mali contre Russie Maroc contre Russie France contre Russie ci ñetti final le non la mais ci biir lolu tamit euh, dinañ ci yok pro savate pro benen discipline la tamit ci bir savate mais ci bitim réew la gën a euh, euh, euh, fés ay Europe ay Chine ay nangam donc promoteur promoteur yoy tamit bëgg nañu ñun bëgg nañu tamit savate pro mu am tamit tank ci bir Afrique parce que c'est la première fois bu boba savate pro di organiser wu ci bir Afrique moo ñu bolé ci. Don non seulement ñetti final yi bu ñu bolé ci ñetti combat savate pro Manam demi finale, ak final savate pro ñu York ci tamit né Bobu bobu dinañ def mémorial Philibas Memorial Philibas compétition la bo fédération at bu nek daf koy def mais bu koy def daf koy def jongante ak ñi ñiy bitim comme liñ ni ko défé daaw daw jéeg et donc manam le 15 décembre kon un événement yo xamné de am nañ importance mais bi ci gëna am solo solo solo deug moy finale yi yu championnat du monde parce que ñetti finale championnat du monde c'est la première fois ñu koy organiser euh, euh, euh, au Sénégal mën naa ne ci biir Afrique mësagul am ñetti finale championnat du monde de savate mësagul am donc nek na lo xamné vraiment événement la bo xamné amna trop trop importance Thank you.